koo xamee rek tey day bis boo xam ne nii ñu ngi koy jagleel li ñuy wax partenariat partenariat la mooy nan nga mën a ñun en tant que université daara nan lañ mën a lënkaloog daara yi nekk Sénégal ak nekk bitim réew pour gën a am daal développement parce que tamit euh, li ñuy def nii dafa laaj euh, ngay am ñoo jokkaloo ci yu bëree bare bari léegi nag tey nag dañoo invité université publique yu Sénégal yëpp ak seen recteur ak seen ak univers ak école supérieure publique yi nekk au Sénégal comme ISEP yi ñëw fii ñuy waxtaan ñu wax leen ñun li ñuy def laaj leen ñoom lan lañ ci xalaat ak ban côté lañ mën nekk en partenariat donc loolu moo waral loolu normalement aboutissement bi aboutissement rencontre mi mooy tey wala beneen yoon ñu xaatim ay convention parce que tamit ay convention ci ay entre université day loo xam da koy xaatim léegi nag bu ñu waxtaanee suñu biir ñu xam lu ñuy def ñu xam ñu nit ñoom li ñuy def dina mën a fexe daal ñu ku nekk la nga am ñu xool lañ ko soxla ñu jéem a xool nan lañ ci mën a defee collaboration yee tamit ñoom tamit ñu xool li ñuy def li ñu ci soxla ñu mën ko xaati mu nekk ay convention ñu signé ko dox ci daal waaw dox ci tax aussi ndaxte dox bi lu am solo la ndax mën ngaa signé rek doo ci dox waaye ñun suñu bëgg-bëgg mooy signé ba pare dox ci ndaxte loolu mooy intérêt partenaires yi loolu tamit mooy suñu intérêt mooy li ñuy wax enseignement à distance xam nga enseignement à distance euh, ñu bari xamuñu ko mais année yi passé quand xaw naa def ay percées surtout jamono Covid bi lu baree baree bari du du laaj ñu teew mën nañ ko def à distance ñu dugg ci internet bi ak xale yu bees yi nga xam ni kii ku nekk sax fu mën di nekk ak fi nga foo foo mën nekk ma ngeen jokkoo ci ay ordinateur ay ay ay ay ay xale yu bees yi daal léegi nag loolu xale yu bees yooyu nag léegi daa concerné jàngale mi. ndaxte li njàng mu bay léegi laajut ngay dem di teew mën ngaa toog fa nga nekk di ko def xam nga Sénégal moom ñu koy def ñu ci gën a fës mooy li ñuy tudd tuddee université numérique Cheikh Amidou Kane ñu mu nekk ancienne UVS e léegi lool moo tax ñu gën koo xam di ko xam ndànk-ndànk léegi nag euh, université yëpp muy fii muy ci bitim réew ak feneen ñoom ñi ngi def tous les moyens daal pour def lu ñuy wax enseignement bi moo daal maam daal combiné def enseignement yoo xam ne ngay teew ak yoo xam ne jëlu ngay teew di ko combiné moo tax loolu moo indi tax nag léegi euh, kenn yaakaar ni euh, proposé en fait li ñuy wax benn campus digital CCAK ba nekk benn plateforme ñu xool nag lañ ko mën a matérialiser ba nga xam ne nii à la na ngi def ay jóg yu am solo daal pour enseignement à distance mën a am te loolu bu amee day baax ndaxte am na ñoo xam ne nii bëgg ñëw jàng ci comprimé mais xañ na seen temps may doon ko wala fañ nekk sori na te loolu bu ñu jaaree ci xale yu bees yi euh, mën nañu jàng fii loo xam ne doom benn différence ak ki nga xam ne mooy tew xam xama université bi euh, ñeenti IFL moo nekk ci ci offre bi ak ñaari institut waaye xama ren bi suñ mën taxaa inauguré complexe bi euh, du lépp lañ démarré ndax dañoo xool ni université côté université moom mën a démarré UFR bi ñuy jàngalee affaire l'islam ak affaire langue arab après teg ci beneen UFR mooy UFR métier et sciences de la santé ñu fi jàngale ji former ay sages-femmes ay infirmiers ki infirmières waaye nag yeneen UFR yi ak institut yi nga xam ne tàmbaliguñu woon ñoom ñooy tàmbali déwén léegi nag ñoom ñiy tàmbali déwén nag ñu indi yeneen formation yu bees ndaxte buñ defee UFR bi ñu tudd UFR métier et technologie ñoom à la rentrée danañ tijji benn licence boo xam ne nii ñu ngi koy tuddee informatique ak télécommunication moom dana tijji foofu beneen licence bu ñu tijjiwaateen mooy li ñuy wax haute étude commerciale jàngale affaire ay affaire finance comptable ak commercial cee jàngal ci licence bi mel noonu boo demee agronomie tamit ñoom dañuy dañuy tijji ñetti licence licence bu njëkk bi mooy affaire agronomie production végétale bay beneen bi agronomie production animale mooy sàmm benn tam mooy agronomie mooy nekk technologie agroalimentaire ni transformation maam daal mbay meeg sàmm mi nañ ko mën a transformer def ko ci ay def koy produit ñu koy jariñoo donc foofu tamit UFR bu am ñetti ñetti licence yu foofu léegi boo demee ñuy wax ilamel fiy jàng affaire kàllaama yi dinañ li ñuy wax licence euh, de de licence de langue étrangère appliquée nañ ko tijji déwén nañ tijji tamit euh, benn benn licence bu ñuy wax muy def affaire jàngale archive avec documentation ak bibliothèque bio affaire bibliothèque ak documentation nañ tëj tamit foofu tamit benn centre de langue nationale étrangère waa léegi nag boo demee léegi nag euh, ci yeneen UFR yi nga xam amoon na comme par exemple santé dañu bëgg tijjee benn master ci affaire science infirmière obstétricale ak benn diplôme universitaire ci affaire échographie voilà donc loolu boo ko dégelee day nekk loo xam ne day bu yokkoo ci li fi nekkoon dana toll daal ci fukki licence ak benn toll aussi ci benn master ak ñaari dewi yoo xam ne bu ñu ko tijjee déwén day gën a jëmmal université bi day gën a li ñu wax day gën a monter en puissance loolu daal ci lañ nekk te pour wax ni daal déwén yi tijjutoon yëpp daanaka yu bare bëri nañ ko tij nañ ko tijji daal loolu daal mooy yu bees yi nga xam ne information bi doon jàllale en marche ci atelier bi nga xam ne nii di ko tax a jóg Euh, surtout mooy partenariat. entre universitaire bi nag euh, xam naa actuellement ñu ngi ñu ngi pare ñu ngi pare euh, examen deuxième semestre yi mais xam fii ak octobre moom nañ lancé plateforme bi étudiants yi tàmbali bindu mu xool ba jamono bu gën a kii rek ñu ñu tàmbali jàng bi. professeur Lamine Gueye léegi li ñu fi dajalee tey mooy président complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Serigne Ahmad Badawi. dafa invité ñi nga xam ne ñooy jiite daara yu kawe yi te gouvernement bi sos leen muy université publique yi muy école yu yu yu yi mais aussi institut yi ñuy wax ISEP nga xam ne ñoom formation métier la ñuy def loolu nag dafa am solo euh, sëñ Ahmad jël décision boobu te alhamdulilah responsable yooyu répondre nañ dafa am solo parce que université moom par définition Euh, lu ubbeeku la du tëju ci boppam te ko booy wax ubbeeku ci ñeneen ñi yor xam-xam war a indi seen euh, xam-xam boobu ci liggéey bi fi sëriñ Muntaxa taxawal euh, da ngay xool ñan nga war a amal partenariat boobu ñan nga war a jokkaleel pour ñu mën a accélérer li nga bëgg a def wala nga def ko sans ngay perdre du temps et des moyens loolu nag booy xalaat Euh, ñi nekk bitim réew ñooñu nga xam ne dañuy ñëwal seen bopp fi mu ne bëri na ay diplomate yu fi ñëw bëri na ay responsable euh, daaray jàngale yu kaw yu fi ñëw déjà war nañoo xool lu mu gën a gaawe aussi université publique yi ñoom seen i jàngalekat dugaloon nañ déjà seen loxo ci programme université bi waaye nag autorité ya leen yor ñoom la ñu invité bi yoon pour que partenariat bi taxaw nu mu gën a gaawee ce qui fait ñoom ñëpp ñëw nañ wuy si nañ Euh, pour euh, wax seen expérience ci seen université mais aussi wax ne ñoom itam pare nañ pour collaborer avec euh, complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ak université bi. pour nag jamono parce que boo xoolee filière yi fi taxaw li ci njëkk a taxaw mooy université bi fondement bi évidement mooy mouridisme ak l'islam waaye nag mun Muntaxa ci boppam ca tàmbali ba. la ñu teel a wax ni lépp luy xam-xam bu am njariñ ci askan wi bëgg naa ñu koy jàngale fii wala ñu ciy gëstu ci université léegi nag ubbeeku boobu moom ci université lay doon doon à l'étranger mais surtout moyen moderne yi nga xam ne moom la ñuy jàngalee léegi xam nga xarala yi dafa changé bu njëkk professeur bi salle de cours a ko intéressé amub tableau am crème léegi nag loolu mi ngi fi mais xam nga changé na diggante bi ci la projecteurs yi ñëw mais lu weesu projecteur bi léegi jàngale yu bëri ci internet lay jaar même euh, travaux pratique yi euh, xarale bi pour nga mën a jëf yu ci bari foofu lay jaar loolu nag la ñu sëñ bi santoon loolu la ñu def te ñoom bi ñu visité infrastructure yi gis nañ ne c'est une université moderne ñoo ko waxal seen bopp ñun euh, waxuñu leen ko woon ñoom ñoo xool wax ko te yaakaar naa dëppoo na ak ak jamono te it mi ngi respecté li ci sëñ bi bëgg maanaam képp kuy wuti xam-xam boo ñëwee ci filière université bi wala nga ñëw ci laboratoire bi di nga fi fekk xam-xam boobu. loolu loolu moom loolu la sëñ bi bëgg mais aussi université bu bëgg a moderne loolu ngay njëkk def maanaam da ngay xool xam-xam yi nekk ci réew mi xam-xam yi nekk ci lislaam xam-xam yi nekk ci yoon wi xam-xam yi nekk ci science wi askan wi yëpp yor ba pare nag nga jéggi yi fi nekkul wala ya gën a xarale indi boole ci waaw loolu la recteur université Alioune bi doon wax. mu ne comme ni ko Senghor doon waxee euh, na nga samp fii mais ubbeekul loolu aussi ci li université bi def la bokk